journal mi ngi taxaw waaye suma xarit ajaratu Asi mi nga xamante ni tey il est venu elle à l'heure tey moom t'es pas en retard Asi tey moom ku lay yedd ku waxtaan ak yow. xanaa man moom. aduna yàggul bul jaay sa ngoro. ah léegi ku fi jaay ngorom yow <laughs> pourtant waa yow ay xarit lañ ne ñëpp wax c'est pas la pâtisserie c'est la galanterie. c'est pas la. <laughs> xolam commencé na. galanterie mën na galanterie mën na la jërëjëf El Hadj Baba Ndiaye bàyyi ma nuyu la comme sama xarit bi moom dox nga sama diggante ak moom ba yàq. dafa ceeb ci tey. waaw ah, garaaw bàyyi ma nuyu la amul benn problème. mais maa ngi lay fay borom laxasaa yu rafet yi. <laughs> Ah, di la bëggee di kontaane képp ku ñu seetaan yaay papa mag ak ndaw. góor ñeeg jigéen ñi ñëpp ñu ngi leen di bëggee. Mm-hmm. di leen wax ne nag tey sax kooku duma ko may mu nuyoo ndax damay nuyu ñi ci prison bi ak ñi ci ak ñi ci. léegi lan nga jël nuyoo waaye lan nga jël nuyoo jàmm dara bëgg a yem te doo moromam. yow ci suuf ne ma maanaam waxoo yow it. jërëjëf kon maa ngi lay nuyu. Adel Tass nga Papa Ndiaye Papa Ndiaye la xam nga ceencolog. mais li ma gis tey bàyyi ma koy bàyyi mu nuyoo ma wax li ma gis tey. nga soog wax li nga gis tey waaw Moussa <laughs> Ba yëpp ah di leen bégee bu baax a baax. Mhm. tey nag mu nekk dernier jour de la semaine. Mhm. ñu ànd seeg suñuy invité yi nga xamante ni kii moom tey Mara. Mhm. mbaa duñ def ñu koy defoon sañse lu rafet ñëw toog. tas sa yaakaar déedéet tey sa yaakaar tas. woy lu bon kii du woy lu bon tey tey tey moom sa yaakaar tas. sañ sa dara sañ sa dara def ba takk ay mais bii coppet keroog boo xoolee li mu sañ see war a xam ne du woy lu baax. eh sama darab bi la sol. bii dara lañ ko ñëwal dara lañ ko ñëwal. ba pare mu ñëw ko bàllaar si bu ngand nag. tàngoor bi mu jiital semise ñu ne déet mu teg ci gilet kan bu doo yëpp mu tëj ko. ma ne ay li wax du caaxaan de. dara ñaari ñaari montre gis mu ñëw ñëw ko ensemble. def si ñaari montre yu diis sax. ba pare takk ñaari montre ci loxo bi. yu diis laa sol casquette ma ne ay waay ñun mbaa duñ pare sapeur ah, ñëw yàlla bari na sutura may nga ko nuyoo tey instant bi moom vie coofet la ñu topp man ay waali dëkk ay bibis ñëpp bàyyi naa leen léegi vie rek laay topp insha allahu rabbi bi ngi doon alaaji Papa jaay wax na ko dalal nañu ñoo xamante ni tey na nga jóge ba Mbour tey xam naa ne Petite Côte bi yëpp ñu ngi toog di seetaan. ay alaaj yaa ngi doog a xooy. kii li tax toful toful bis bi. waaw indi matériel yeeg bagage. bagage yëpp ñëw. booy da ngaa jaawale ak se TV. <laughs> kon alhamdulilah. mi ngi doon ah ñu ngi ñu ngi koy nuyu bu baax baax nuyu waa Mbour gépp nag ah li ko li ko dalee dañ koy tàmbalee diggante Bandia ah dem Sindia ba dugg biir campement dugg mbuur nuyu ñëpp dem Somone Saly Simal yëpp ñu nuyu leen parce que tey nag seen doom lañ dalal doomu Petite Côte bi moo ñëw Samba dem ba comme yaayu Amara taalibe Serigne Saliou bi sama waa ji ah, Góoru Ndiaye maa ngi kaa nuyu bu baax a baax a baax a baax dañu lay dalal Samba.

non gis nañ. ah gis ngeen gis nañ kër sëñ Ablaye Fall. ok waaw eh, sëñ Ablaye Fall man joni joni. waaw ndeysaan dëgg la. léegi da nekk suuf joni joni. léegi la ma kakatar la day yéex. <laughs> day yéex léegi daa yéex. Eh, déedéet waay sëñ Ablaye Fall kakatar. <laughs> mi ngi yàq sama xarit bi nag laa ilaha illallah. <laughs> léegi moom sëñ bi day yéeg moom. ah, ah, oh. ah man damaa tiit waay. sëñ Ablaye léegi day tendee eh. bal. bon waaye nag kaa ma wax la ñaan gi moom bal la moom mooy borom ci saa si moom day ñaan léegi nga gis léegi. waaw sama xarit la bàyyi leen jàmbur ayca sàmm ayca uh-huh. yëgale waaw di ko di nuyu ñëpp di nuyu sama yaay. di nuyu waa Mbour di nuyu sama jabar. Mhm. waaw di nuyu amaraam mi nga xamante ne tey moo tax lii am. dëgg la waaw di di di ñaanal ñëpp nekk ci jàmm. tey nag tey nag. Mhm. tey tey rek la junj di yëngu moom. tey junj gi day yëngu de. la ndax tey la. la ma sonalee waa Mbour laa yëpp waa Dakar. duñu koo yàggal. waaw moom ku wax Mbour xam ne talent bi bari na fa. maa ko te mbuur am na benn crème boo xamante ne actuellement mi ngi judd. boo nee Mbour Samba Dem Asto ah ku mel ni Papa Ndiaye xale yooyu nañ cër ci mm. te insha allahu ci kanam dinañ ci xam dara mais dañ lay bàyyi nga doxal otoraay bu jubee jaar mu corne waaw léegi nañ ko neexal ba mu neex rek ñu bàyyi waa Mbour ñu wane seen bopp ma xool diggante Mbour ak Dakar ku dàq ambiance waaw <laughs> cëy yes yes yes Yes. Yes. Yes. Semulen, semulen, mulen. Ay. Şey. babel ma nuyoog ñoom ma nuyoog ñoom yeey sooy nuyu da ngay yaru sooy nuyu da ngay teey de xam nga ni kooku ku muy nuyu samba dem ambiance rek rek rek rek sere mu leen sere mu leen mu leen mu leen mu leen mu leen moo demoon ca leen farlu waar ki may bëgg a way mooy Ndiaye Bakar Koddu Papa Ndiayoon tumi yaay sëñ Ablaay Faal borom jooni jooni jàmbaaru ñu sawaaroon sama yaay ju baax ji ñaaña mbay ne woon naa ni fii fii yëgul ñaari bi mi yoon si saal bool taalibe sëñ Babacar Sy Bakariya Daraman aram loo Kumba Caam buguma buguma kenn da yëgul fii fii fan yeey fii laa ko def Baba Caam mala mbayi macara mbayi mbiram du geeyi maca ngor majara wayal majara tëggal torna samba gari jamman soyu mama ji fa mama ji bingel bingel bingel bingel wax leen ndang naan fii fii yëngul yi mama ji ma mama ji binal mo ne taama e eh, e eh, e eh, e waaw yëngal bi bay yëngal booy mu dox hey mu dox yey yëngal bi bay yëngal booy waayal waaw xoolal ambiance ba moo ko xas ba mit gisuma lu ma ko jëlee nii mooy waa Mbour waa Mbour jug leen yëngu yaay seen doow ba waa Mbour jugal ay fii fii ca kaw seen loxo ca kaw ee yëngul yëngul ee e, waaw ee e, waaw waay ay cunin yee seen loxo ca kaw ay ay ca seen loxo ca kaw ne kurumba woy daa ko rumba daa ko rumba daa ko rumba daa ko rumba yow daa ko rumba yow daa ko rumba yow daa ko rumba moo tax ma naan ambiance ma ko xas ba mit gisuma yaay soo melul ni hey seen loxo seen loxo ca kaw tey ma baat ku baax ku sagal ndeyam oxo tey ma baat ku baax ku teral ndeyam wax leen bamba tey ma baat ku baax yee ku sagal ndeyam abo abo abo Mara bi ma jàppale tey ba ma yegg si fi yow abo seen loxo ca seen loxo ca yee seen loxo ca seen loxo ca kaw seen ah may ko Papa Ndiaye woykat bu mag bi ca Mbuur waaw waaye problème am na de suñu rakk suñu xarit Papa Ndiaye problème bu rëy am samba day gëm nga nit damaa foogoon ne daa mën a fett de. ah. mais bu waxee Salam Diallo rek laay gis. dèjà ci temps lay ne. ci temps Salam Diallo ko yàlla fay. waaw waaw. ah waaw ci temps waaye Ousseyn Ndiaye mais. <laughs> Ousseyn Ndiaye ko tuddee <laughs> jërëjëf El Hadj Papa Ndiaye man mu ñëwee ma gis équipe bi am ñaari gauche laa xam ne. <laughs> si yomb. ah ñaari gauche la. mais maanaam Aliou Ndiaye nee na mu ngi lay bëggee a Aliou Ndiaye bu waaw waaw maa ngi koy bëggee moom suma xarit la. ana ñaari gauche yi El nañ tëgg nga xool. Ah, tëgg mi kay jarul laaj moom. man dama dégg fii. dégg nga dégg nga. ci na cool mi nuyoo ma xool nuyool. jaga waaye sama. mbaay daala mbaay. c'est ça un artiste complet ah. waaw bu ñuy wax artiste tu dois être hors pair. ah coppet ngay gaarawaale. vieux coppet borom. Ah. ba pare moom fecc bi dëgër. ba pare day raw sama yi. jël nga ko bàyyi jàmbur. xoolal keroog bi mu feccee xam nga sama xel ci lu mu dem. bi benn doo demee Zénith. <laughs> bi benn doo demee Zénith na. <laughs> lu leer la Mara wax. Eh, tey moom daanaa na ñëw macha allah. ajo tëgg mën nañoo tëgg. waaw kii ambiance mën naa ambiance. kii way mën naa way kii mën naa way. kii jàmb. ba moom. tarkalla moom est-ce que dina ñibbi. Ah, donc c'est l'équipe type de Samba Dem donc ñu nga jóge ba diwaanu Mbour ak si Ndakaaru fas yéene ambiance tey ambiance sur le dernier numéro de la semaine xam ngeen ne duñu ko njar donc aasi na ko dal. Samba Dem euh, Dem dóopal. waaw tukulóor laa. Eh. taas wala muy loolu jafe na li kii de wutal naa géwél bi fi toogoon bërki dem <laughs> mais ci biir tukulóor yi am na ay géwél géwél la tukulóor na wala am na gawlo am na gawlo waaw parce que bu ci boo demee tukulóor da nga fekk ay cubbaloo fekk fa ay torodo ak yooyu waaw yow lan nga ci exactement man ay waay <laughs> maa doon torodo xam nga lu bañ a wax li mu doon ba ba pare waaw defoo daraay tooroo ok loolu mën a nekk mais nit mënoo doon li nga doon ba pare te doo ko xam loolu moo mën a nekk Samba wax na la mbër ma waxoon waaw bakaay na ko ñaataat mu a ko xam ma demee laaj ko sama yaay <laughs> merci beaucoup Samba ah si poursuit waaw jàngee ay way laa bëgg a xam man. waaw seen waa dafa am kuy way wala. Ah. Hmm. naa ci lii muy ambiance bi. waaw mhm. waaw xaw naa yàgg tuuti rek. Mhm. Mhm. xam nga keroog euh, Ama Cukole mi ngi koy wax bi mu wootee bi ñu invité fii xam nga fii géwél la mais Ama ni na dégg amul benn école bu koy jàngale. ci àddina wala benn xeet bu ko amul dégg moom. amul géwél moo téye bës bi. non moo téye bës bi ñu toll nii. <laughs> te semaine bii di ñëw isa xam ne koy invité waat. Ah, pour nga bañ a ñëw bu ma la ko wax dama koy dégg def ko surprise su ma koy seen di daw dégg moom <laughs> maanaam te bu ñu waxee artiste xam nga Sénégal ñoo tàmm bu nee aar rek ñu ne géwél hmm. mais artiste du yëfi géwél ak yëfi géer maa la ko wax voilà aar don la yàlla moo koy def ci ki ko neex nga am dégg soo woyee mu neex boo feccee mu neex hmm. Papa Ndiaye xam na li may wax ah déedéet loolu moom amul sax ma dem te ñëw hmm. nopp boo ko amee yàgga tarbiyu faaw nga nga jëlee fa dara parce que saa dàgg fii la la jaar ne la man damaa mbapat ne aada surum la lañ ko tuddee daan simb. daan simb. c'est-à-dire gars yi da ngay nekk ci benn ruq di mbapat di mbapat di mbapat ba xëy feeñ ci yi rek. Mm. ñu ne kii fu mu nekkoon. Mm. fekk na yow yaa ngi doon mbapat yëf yi. Mm-hmm. ba boo ñëwee arène nationale da naan kii fu mu newoon. dëgg saa nga dégg per Bekaay sax ne waa xale bi kan la ci xale yi. Mm-hmm. fekk ne mi ngi woon ci mbapat yi di ko toj. moom li mu def nii man kii bu ma koy gis muy fecc dama ne booy bi moom. mi ngi toog <laughs> lu bëri day nelaw ci ñoom maanaam. lan lan moo indi transition bi de fecc à à à taasu jóge ci da nga bàyyi fecc bi. salaam yaa ngi fecc ba léegi waaw waaw. ok hmm. donc da boole fecc bi en même temps yor sa groupe bu bopp. waaw boo xamante ni ci ambiance la. waaw lan moo lan moo indi motivation bi pour allier les deux. ndax euh, gars yi dañoo yàgg di ma laaj loolu. dañ ma yàggoon dama daan topp ci ginnaaw nit ñi. maanaam bu ñu woyee. Hmm. ma leen di ambiance am. ok léegi mu dem ba waaw mu dem ba. ñi ñi di soxla ma leen di jouer par soirée par dimanche. Mm-hmm. waaw léegi nag loolu loo waral ñu dem ba def group bi nekk mbuur nag. Mm-hmm. waaw di liggéey mag gaa yi. Mm-hmm. te boobu ba tey mu ngi nekk artiste mbuur yombul de. Mm. mbuur daa bari nga naan de. torop torop sax. <laughs> ban bëggee aar fa la dem dëkk de. waaw ban bëggee aar. Ah. man Yanda Khalifa Mbaye Ndeye Gueye Oumou Sakho. <laughs> weekend foofu rek Kër Lan Mbaye. Cyril Bathily di ci jàpp nag dañu jox adalam dañu jox xaalisam di ci mm-hmm. jàpp mm-hmm. maanaam man dama ne ñetti dëkk yi moom koy def aar faaw nga fay jaar mm-hmm. Mbuur Kaolack Louga maa la ko wax dëgg la parce que ay ndaanaan kulli fadrin ñoo fa ne <laughs> lu leer laa wax de maa la ko wax de man Kaolack laa mos a gisee fecckat bu fecc ba mu nekk ko indi siwam ak jàppeem di sax wu yaay ci <laughs> wax ooma lii waay maanaam mos a seetaan kii kon seetaanul gars yi. non seetaanul di sangu maanaam teg omo beeg lépp mu xëpp. muy sangu ba set ci biir géej. <laughs> boole koog seen fi di daaneel. di def lu ko saf. très bien. ayca nañ demaat ci. mën de. ambianceur la donc euh, Samba du yomb nañ koy yëngalaat bu muy yëngu rek. ayca ayca lu mu neex doyul. mburu géej moom coomo juddu fa. <laughs> na neex rek allo. waaye sëñ Ablaye Kakatar maa ngi lay nuyu. ñi doora ñi seeni ci layoon ne dina am lu xew jëlal sa yëf ee eh, mu dox wàllu wayal fii mu neex yokosul way ko ay dund yaakaar ma capital may borom damay tëdd ba waxal su demee mbëggeel da lay sonal di la jooyloo nga koy waaw mu leen jël jëlal sa yëf ee mu toog yaa ko bëgg ragal danga digg ne moo tax mooy ma gaañi siri mi nu mi demee bu jëkkoon da ngay toll ñu may la jabar waaye léegi boobu amul jëmal tëddee siri dog siri dana jéema luy mbëggeel mooy capital lu boromam Bamba Caam mbëggeel kenn xamul fu mu kenn xamul yàpp am si deret day dox foo toog di xalaat xalaat bi na ma wax leen jëlal sa ñu dem waa moo waa lu mu wax def ma bëgg te aji góor ga góor ga góor ga góor caab jëlal sa yëf hee ñu do bamba baay jaga baay sama sirif géy gi sama mi di jooy koñ ñu dem koñ ñu dem Nasir koñ ñu dem Moustapha Ndiaye Ndiaye Bakar Kodou Ndiaye loo way sama waa ji doyul way ko way ko ay si nit suma tay bi la joome Papa Ndiaye Papa Ndiaye mooy mbokkum yaay Mara uy Mara uy Mara Mara taalibe Cheikh Ibra dafay du kat ey eh? diine jar na ko taalibe dafay du kat ey eh? taali jar na ko yow Pendo nee na yow Pendo nee na Pendo laa dem ba bari ay dee ko rumbax rumbax ay waay di rumbax rumbax rumba rumba ye rumba rumba uy mara mara uy mara borom setti bi ñëwoon yow mara ye fini soo gisee ñu ne eh waxal billahi ye fini yow papa jaay papa jaay papa jaay papa jaay Papa Diagne waxtu ma ko bindee di sa ambiance maay borom. Sénégal de réew jàmm la liggéey leen te may joow leen. waxtu ma ko bindee di sa hey wax leen ci loo ne waaw waaw yow Masaka ci jàmm ci loo ne Amara wax ci bako bi dirise ambiance ñoo moom sooy waxati ba mu yàgg wuta sa bi gàtt yaay na coow li bari bari ñoo nasir eeyi kita mamori ta mamori mamori me dunga moy bay menacer bay bay bay bay siri bose dina la waya say ma way ko ba mu neex la ma def ko ojo déedéet saa jogu way ba mu nekkoon mu def ko deema yow tuuti burum Caagin Papa Ndiaye guus guus guus Galas Mbaye benn xam nga lu tax mu bëgg ko dafa bëgg Samba dem ba mu jeex wooy nga simb wooy nga mbapat wooy nga lu ne kon ci bisi nga njëkkee Fallou dama bëgg nga woy woyalal télé bu mag bi 7TV gaa xam na da nga a woy الفرادي ايتو بابا جاي بابا جاي بابا جاي بابا بابا جاي يا جنة يا غني سيا يا جنة Serigne Saliou borom jurul borom jàppandal xabaan borom doowaanaay key yaayoon waayoon lay lay la laawoon amara da yëg si noon mara pep mara pep suma jigéen dinaa la waya suma ko waya dina neex di ko wayal ba mu neex suñu yaay ma amoon moo ko waral yaay asoo neen lu Pape Diouf wax siri baaboo duma di la joobe mare mare mooy mare mooy mare mooy tay may la lu wax Pape Diouf nee am na looy woy ci Pape Diouf loo xam ni ci yow rek laa koy dégg Fallou ñëw Fallou booy na dikk soo dikkee mu neex boo waayee mu neex gaa yi ambiance ay mama ciamooy dama yaay xaatim baayit du ma tay di la joor ay ay tay ma di la joobee tañe di la joole ay sa yoon yaay nii na nga soo segee ba mu yàgg ragida ragida ragida ragida ragida ragida ragida ragida les ambianceurs yéen ñu andi ci tey pour ambiance ambiance rek rek rek moom rek la ñuy def les ambiances yaa ngi ni ay les ambiances émission bu mag xale yéen rek la ñuy topp yéen ñu ko ah ñu dellu foofu. ah Bamba ay doosel Papa Njaay kay bakar ko di ambiance ambiance tey am problème nag musoo leen am problème mais tey da am problème. mooy dañu lay invité nga def sa émission dem sa yoon mais ñi am problème mooy ñi nga dëkkal bokk ak ñoom la ngeen def ñi ambiance ñoo ñoo am problème ah, ah, ah niveau baa ngi fi de am na niveau de macha allah parce que déjà équipe bi. équipe bi suuree nañu am nañ complicité ku leen déglu dina xam ne yéen a ngi liggéey parce que musique aussi bu ñu naxante waaw musique liggéey la boo ci yaa ngi sa entreprise yaa di créer di innover di répéter boo ko defee bu ngeen toogee jouer rek nit ñi xam ne yéen yéen a ngi liggéey waaye kii jàmb tamit <laughs> Fallou Ndiaye PSM de boo yeboo wut sëriñ bu aay wut pilial booy booy zéewal ma xool Pape jox ma clavier yi Fallou Ndiaye PSM de heureusement ba mu dëkkee xam nga moom ginnaaw kër Mère Tako la dëkk xam nga Mère Tako ba ah. la dëkk heureusement bu ko yeboo nag ngay dem ci Mère mu lay jox ñaq yeeg yooyu ngay sangu sama doode woy awara jëriñu ko jëriñu ko doon jëriñu ko hey jëriñu ko maar yaasin bay sama jëriñu ko wax leen gonjo <laughs> mais barke yàlla eh, Pape ana jërë yugo bi ma la dénkoon yow. waaw kay jërë yugo bi parce que jërë yugo bi. bokkul wute naa jërë yugo bu mardi bi. Pape dama dimbali sama jërë yugo bi ma la dénkoon. moom moom dégg muy wax ci Papa Ndiaye Coppe. waaw te kooku ku ko déglu sax. xam ne mooy wax kat bu gën a mag ci. barke si waaw kooku lépp lu wax téere la. dëgg la waaw. léegi ki ñëw na di mbubboo papa Ndiaye looloo ma ci métti non affaire boobu feebar na. feebar na benn vieux coppe waxal ak moom waay. mais Pape Pape nag bu ma ñibbee dinaa ko woo de. na ko Pape waroon nangu lii ba pare nag dama la wax lu gën a garaaw TV kenn na wala mais Mara coppe ci boppam moo ma woo. waaw ne ma vieux coppe damaa bëgg bëgg meew te waroon nañu télé bi te vieux coppe dafi toog. aywa Ndiaye moo woo naa ay nitam Amérique. ñu dooleel coppet woo na ay nitam Angleterre. ñu dooleel vieux coppet. <laughs> Ah, bàyyi leen vieux. vieux coppet xam lu mu def yow Samba. waaw ñëw di way ci ginnaaw musique bi. <laughs> non moom kay ne fii moom mu dem monument ba. teg <laughs> ko man xam nga laa foogoon. mais kii kii moo war a ah. naa ko doon moom defal la ne. maaraanaan maa ngi maaraanaan maa ngi jégalu auditeurs maa gi tuut ñu ñëw tëdd fii maa ngi seet maa ngi toog kër yi. sama xam nga li neex. vieux vieux day comme artiste bu amul retour. xam parfois loolu mën na nekk nga nekk ci kaw concert du jeté amoo retour ah. yaa gars du ngeen tolloo ah, waaw barki yàlla viooyu lu ko dee neex la indi woon nag billaay booy ay booy grave dañoo ay ñoom ñoom nañ ma dimbali rek buñ déglu nit ndax mbooloo mooy doole dëgg la te li may gis nii yem na waaw na surtout complicité bi bu déglu kenn ku naan kii moo mën lii kii moo mën lii kii moo mën lii waa groupe bu tas mbooloo mooy doole yéen ñëpp mën li ngeen di def téye leen ko nii rek bañ a yàkkam mhm. li ma may jaxaseeg maanaa buñ leen boole buñ ma wéefee ma mbappoo ko buñ gisee jigéen ju rafet ma jaat suuf yàqal non dama leen yedd booy ki looloo yàq sama diggante ak yow. sax du xeex ma ak moom <laughs> attalan nu fu ne oh. bayaalu marché yeeg bu leen dara boole waay booy. li neex la simple nga. bu mu doon jigéen bu mu doon xaalis. acca aasi ah, dañoo dem finalement. dañoo dem ba nduróo. même gang bi la. dañoo nduróo lox yi et euh, ngi doon wax ci waxu euh, concurrence man balaa may ñëw ci loolu nañ ci ñëw mais balaa may ñëw ci loolu dama lay laaj ndax yaa ngi yaa ngi yaa ngi nekk ci boîte yi. di joué yaa ngi joué concurrence foofu mu demee. non man moom man man man man man fi ma nekk ak gars yi fi nekk boobu. Mm. parce que gaa yi ñoom dañoo nekk ci fu mu toll nii Papa Ndiaye moom moo boo moo ngay toj mbuur moom. Mhm. waaw ah, Papa Ndiaye mii moom it noonu la. Mhm. dafa am group ni nga koy gisee nii. Mhm. mais bu ma bu ma so bu ma ko soxla day bàyyi lépp man su ma soxlee damay bàyyi lépp dem fekk ji man ambiance laay def woyu ma woyaaru ma dañ may woyaat. xale yu jigéen ñi ambiance la ñuy wër. yow li nga mën yow li nga mën moom mënu ko moom li mën yow mënoo ko. waaw kay ànd bi noonu la waaw nii la ñuy àndee. jërëjëf. d'accord. Ah, question yi jeex na. Euh, tey est-ce que boo ñu doon ñëwul peut-être ci sa idole tey métier bi ngay def comme ni nga ko waxee ambiance la. mais Mbour am na ay boy yu mën a ambiance tamit. am naa fa xarit je pense Badou la tudd. moo doon moo doon ambiance al bastaay Badou sama xarit waaw moom aussi booy bu mën li muy def la ma ngi koy maa siyaar tey tey am nga idole ci ci taaskat yi wala way waxkat yi waaw kan Samba Diar Samba Diar Mbaye sama idole ci li muy def da ci am fulla waaw ba pare diñ la waaw tey kenn mënul def dara te laaloo. waaw dëgg la waaw daa mën a ambiance nag. lool waaw mais damaa dégg ni nekk di concurrence am. non sama xarit la. non. sàmm day gée sàmm day gée ba pare ma ne ko lii nga gée nii suba dama dara maa moo ngi Dakar maa ngi Mbour. waaw mënu ci dara. waaw mm-hmm. ah, parce que maa na nekk Mbour duñ gis maa leen di bégal foofu. waaw waaw sa mentor la sax. sàmm sa moom dañoo yàgg. waaw ndax moom jamono yu muy simb lay ñëw di dagg di ay oto di ñëw ba foofu di ma seetaat aar dafa am ñett yu ci ne boo ko meloo bokkoo ci boo soxoree mbaa nga siis mbaa nga iñaan mhm. bokkoo ci aar mhm. aar dafa yaatu mhm. li nga def na ku soxor mënu ko buy kii ba ci yàgg nga présenté ko wan ko nit ñi ne ko da ngaa mën a way lool ñu laaj la ci sa nawle Samba Diarra nga ne moom mooy sa idole wallaay ku soxor mënu ko ndax ko iñaan du gërëm moom rek laay déglu aar soxor bokku ci yaatal te yaatal ba pare am ñu lay daaneel nga nangu nu yow am na ñu lay daaneel. dëgg la daaneel am na ku lay daaneel sax problème bi kay mooy da nga koy fësal wala ngay làqatu di ko déglu. nga nëbb ko nga di ko nëbb. am na ñoo xam ne dañuy toog ci télé yi nga tudd diw ñu ne la non maa ko dàq li muy def ñi nangam mais heure bu ñu tëjoo seen i néeg déglu leen. démb damay wax te bu ñu joué tamit nga sentir seen yëf ci ko damay wax benn waykat bu jigéen bu mag. ma ne ko yow kan ma mën a ma am koole ñun dañuy soob rek kooku mën a way. muy ma daanu ma xam ne kii dafa noppalu. Ah. mu ne ma amee Kola Dieng ñun waykat yu jigéen yëpp nañ nangu ni du nit ah. dëgg yàlla loolu ñàkk ñaan la loolu ñàkk ñaan la jërëjëf ñu ngi nuyu ñu ngi seetaan Aliou Ndiaye suma frère maa ngi koy bëggee ah infographiste bu mag bi photographe bu mag bi moom affiche yi ngay gis ci réew mi yi ci gën a rafet moo koy defar Aliou Ndiaye maa ko wax ah, boo gis moo koy defar non boo gis artiste bu am événement nga gis affiche mu nice Aliou Ndiaye moo fa jaar donc maa ngi koy bëggee bu baax ñii duñ jógee Mbour te duñ leen laaj ci waa kër Papa Gueye Doudou Gueye jaar waaw ndax ku ne mbuur mhm. ne sóoru bàyyee kankuraan yi te septembre mi ngi ñëw maa ah, septembre mi ngi ñëw kan moo bokk foofu ci yéen ci pap Gueye Doudou Gueye Diarra ñii fii ñi géej waaye gi leen dëkk te saa yu mosee dañuy jóge fii ñëw ba ba ba mbuur seel dañuy jóge fii ñëw ba mbuur ay maara aar ko soxor sonn <laughs> ah dëgg la ni ñii ñëpp fii leen dëkk maa kii gesek jóge mbuur jox ko micro bi sinon du dégg duñ dégg li ñu koy li muy wax kee mooy Fallou Boy kii mooy Samba Dem kii Bambala sama turandoor sama rakk la Fallou ngi ne Modou Paccax a ngi ne bokk ak Xaadim Mbaay mii ndey ak baay di rakk ma nit ci man bokkum yaay Modou Mbaay bokkum yaay Njaga mais ñii yàllaa ñu booleeg ñoom muy 2018 ba léegi ma xam Samba mii di ko géyal dem ba xam Fallou mais bokk ci groupe di ko géyal di leen fa di leen Fallou Meye tamit nekk ci waaram nekk mbuur tamit nekk ku mën a woy nekk ci yoonam Samba mii tamit nekk mbuur gëm li mu doon nekk ci yoonam. Mm. li ma leen wax chaque jour rek affaire yi du yàkkamti lu ci waay war a jot rek di ko ci jot mooy li suñu gën a wax léegi léegi Papa Ndiaye. Mm. moom it roy waay la ndax li mu wax rek boo ko déggee di nga comprendre. dëgg la mais ñun ak ñii moom leneen la quoi du ay GIE du ay xaalis. Mm. waaw ndax buñ nee mbuur kër kii la di tëdd bu ma tëddee kii ma kër kii ba mu neex ma kër kee laay tëdd te dara yàquut hmm? ndax kam nekk mbuur moom di simb muy amat dem di ko toj ba mu nooy hmm. kon affaire yaatu na daal man li ma ciy conseil di ko ci wax rek mooy ñun ñëpp nañ bañ a yàkkamti hmm. ci nekk li nga gëm nga doon ko rek tôt tard dina baax mbuur moom wax muy neex fàlloo nga woy muy neex mbuur moom dëkku aar la Papa Ndiaye wax na ko léegi kankurang yi ñun ñaa ngi koy waajal boo ah, ki muy wax léegi donc mbuur dëkku aar la ah dëkk culture la donc ñu ngi bëggee waa mbuur gépp gépp gépp de ni suñu frère Pama Dieng mi ngi waajal incha allah rabbi événement bu mag. le grand théâtre mook Sabel le trois bi lay doon incha allah rabbi le 3 mhm. je pense dimanche lay nekk non samedi. le 3 samedi la incha allah rabbi donc Pama ñu ngi koy souhaiter bon vent di ko ci ñaanal suñu borom dafa ko ci réussite totale. Pama Dieng au Grand Théâtre ce samedi 3 août incha allah rabbi bëggee yëpp ñoom Mar Dieng Roqaya le monde. ñu ngi ci ginnaawam di ci liggéey liggéey bu am solo te Pama xam nga bu wootee grand théâtre lébu gépp mm. dañuy jóg ndakaaru jóg te nga jóg fukki penc yeeg ñaari ñëpp dañuy jóg kooku alaaji njugaay baayam waaw daa liggéey ci réew mi liggéey ci musique Sénégal loo xamante ni ñooñu yaru rek lañu war a def xam nga ak lan maara mm. ak way ak way dëgg la yaru ak war a def ak way ak way dëgg la mais papa njuga loolu la dëgg la yaru na mm-hmm. baaxoon na mënoon naa way mm-hmm. kon boo ne mooy bàyyu kan Pama Dieng Pama Dieng mooy ah. bàyyi kan Momo Dieng Sabel Dieng bàyyi kan Momo Dieng loolu bu ñu wootee grand théâtre c'est normal addunaa yéeg waaye bul fàttali hmm. a ah. Papa Ndiaye Mbour Mbour xale yi neex nañ saf <laughs> yow ay la yóbbu wala xale yi man daal li ma yóbbu bari na de <laughs> lu ne nga fa daal kon daal saako léegi demal naa ko dimanche dimanche dañuy ànd wala ma fi bàyyi. non man Samba laay def. muy yaay yéen a wax Samba ngi defar kanam gi Samba Badou yow Papa Ndiaye daa am dara. Ah? Badou yow a yow Papa Ndiaye daa am dara. jëlal micro bi xëccal micro bi ah. xëccal ndeysaan et puis et puis mook ku ci nekk mën na soxla moroomam Papa Ndiaye day woy moom day taasu war ngeen mën a def ay single war ngeen mën a organiser ay soirée ay événement yu parce que ay doomu mbuur ngeen mm-hmm. ko yóbbul parce que musique moom mënul ñàkk mm-hmm. mën naa dal ci yow mais keneen ku dul fecckat na dal ci sëriñam sëñ ma dal ci kii loolu nga gis yow. non loolu mooy yoon. kii bu ñëwee sax kër Amara gi. waaw kay man damaa fàtte. non non non non ba eh, kër Amara déedéet loolu mënul nekk. déedéet eh, na ku ne jël xaritam na ku ne jël xaritam maa ngi koy nuyu moom tamit xam naa ne. du ñàkk bu ñu waxtaanee ba noppi ci beneen morceau bi waaw bu bu ñu waxtaanee pare ci beneen morceau bi la ñuy tàggoowee. temps baa ngi temps baa ngi dem mais dama ne la na ku ne yem ci xaritam Amara moom Serigne Saliou ñu boole est-ce que borom jàpp na rek njurul xabaan la ka nag dookaat daal jurul ak umul xuraan kooku kenn la ci man góoru njaaye bàyyi ko bul dugg ci ay mbiram yemal ci kii ma yem ci kee léegi amara sëñ boole ah amara waaw <laughs> lii kenn mënu ci ci man teew faa ko bokk man waa Njaay doo gore rek jër añee di reer rek fanaanee seetaan Papa Ndiaye <laughs> ayca kon incha allahu rabbi dimanche mbuur nan nu xaar donc les ambianceurs dimanche bu le passé Papa Ndiaye moo demoon dimanche bi passé man maa demoon mais dimanche bi incha allah ñooy ànd ñooy ànd <laughs> ah man dimanche ngay dem yow yaa ngi mën Diouf ayca Samba dama lay bàyyi nga ñëw ci sa ay projet bu fekkee que ne am nga yooyu préparé dugg studio def single wala yu deme noonu wala am ngay date yoo xam ne aussi yaa ngi koy prévoir waaw waaw maa maa maa ngi studio pare na sax nag mhm. daanaka waaw ñaaña mbay bi nga xam ne sama yaay ji mm. ne ba may ñëw daf maa waajal di gërëm farsis mi nga xam ne da cee jàpp ñoom amara ah perzo sama goro bi ki nga xamante ne moom may jabar mm. wax dëgg yàlla maa ngi gërëm waa kër ga di gërëm mère Absa di mm. gërëm nag sama jabar bu baax ndax nag lépp lépp moom la dafoo de barki Seydina Muhammad mm-hmm. pour man jabar ju la ñi xam ne jabar ju baax la du leen xeelu wu yaay. jabar joo xam ne 23h bu tëdd gaa yaa ngi seede bu ñëwee bu ngeen ñëwee rek dressé. ja joo xam ni. waa jigéen ju baax 23h mu kon kooku bul waxati jabar na fa di ay bu Samba bul waxati jabar wax soxna kooku soxna la. kon Samba seen potam yi dem feesul. non dañuy dem di jaay <laughs> ah taalibe sëñ Babacar Si. nan dem léegi damay lay ñaanal rek yàlla defal la jàmm. ba seex yi nga ñaan yàlla defal la ko. allahumma ya rabbi Coro Faye nag marqué nga sa apprenti wax dëgg yàlla. Ah, man nag man mii di sa jëkkër gërëm naa la. Ah, barki yonent bi di gërëm sama yaay di gërëm sama papa. ah maram dem ak ñëpp. ñu kër ga sax toog nii ndeysaan ñoo ngi may envoyé vidéo maa ngi maa ngi ñëw léegi bu ko defee nag après. Ah, nag les dimanches ñoo ngi balafon ak Samba Dem. fan la. boo dimanche. fan biir Mbour. ah ok biir Mbour la waaw tous les dimanches waaw tous les dimanches ban heure soirée la wala yendu wala ngoon na. 17h lay commencé jeex 20h. ok yendu lay après gars dem ah kon noonu lañ def Mara. moom sax bu boobaa da ñëw waaw buñ buñ yeggee. man faaw fii sax. après màggal waaw. man faaw ñëw fii buñ màggalee ba pare. incha allah ma ñëw rek ànd ak gars yi. loolu di la wax gars yi ñëwuñu dañ leen a xaaj rek cinq fi na yeneen cinq yaa ngi kër ga toog. ndeysaan mais nii moo baax. jërëjëf kontaan nañu franchement Samba ça a été un plaisir de te recevoir ci suñu plateau ambianceur ça a été vraiment un plaisir et j'espère que téléspectateurs yi itam ils ont mais mën nga joxe sa numéro de téléphone boo ko defee mbuur ak dakaar buñ la soxlaa ci ay programme mm. yaa ngi ci yaa ngi ci jàkkaarloo yi. bu ñu la woowee orchestre ngénte wala yooyu da nga koy joué joxel numéro de téléphone bi wala sa numéro manager numéro téléphone bi nag 78 euh, la 162 16 36 78 162 16 36. ayca waa Mbour seen doom a ngoog. kon wala ku woo ku woo Amara sax boo ko jotee après moom ngay waxal. jeex na kon le ménageur du peuple. ayca El Hadj Papa Ndiaye. ah xanaa da di jël émission bi di ko may sama xarit bi nga xamante ni ñoo fowandoo. yàlla yàgg ñoo boole. Mhm. sëñ Touba boole ma ak moom. Mhm. muy Amara. mu yàgg lool wóó. te mi ngi koy soog gis tey kii moo ñemee yàlla. dama tiit. baax na tiit tey. di leen kontaanee. yow eh, eh dama laaj. li ma la yël nga àttalul. koo foo sa ngi dem de. koo foo xarit bi may émission bi yëpp amara. ah. maanaam nee naa gaañu loolu ci amara. ah yow tàggatool. mais mais Papa Ndiaye ko am fulla la. ko am fulla Papa Ndiaye gën du ko rey de fu neex lay wër. fu nooy fu ma wax fulla maa ngi tàggu keneen de. ma wàcc ci Amara mu yuuxu. Vieux Café laa may sama émission man semaine bi yëpp moom laa may émission. bi moom rek laa ko may semaine bi yëpp. ayca jërëjëf mi ngi noonu jaajëfal nañ téléspectateurs yi di leen jox rendez-vous insha allahu rabbi lundi bu ko defee nag ñu tàmbali safar gi nag à partir de lundi insha allahu rabbi dañuy door safar gi jëm 18 safar ah, bu ko defee jàngkat yi wereekaanu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rassoul yi comme ni ñu koy defee chaque année suma gars yëpp ñu ñëw góor a jum ak Fallou Lam ak Badou Zikour du ma ñëw Pape Faye lu tax parce que zoo as yow rek lay dox. di ma bàyyi zoo moom it. moom loolu moom c' est c' est calé incha allah rabbi muy équipe bi yëpp as yi Papa Ndiaye Mara yëpp zoo as incha allah dina leen sponsorisé bu ko defee werekaanu Serigne Touba ñëw ñuy tagg tedd ki di waxtaane ay baax baaxam ba keroog ñu yegg ci màggal gi incha allah rabbi lu may loolu bëggee zoo as. kaay ma xool bii bii daa nooy loo ñu def tey. non seulement <laughs> seulement <laughs> laa ci def seulement nga ciy def jërëjëf donc Zou As ñu ngi koy bëggee numéro de téléphone am 77 la 353 25 04 353 25 04 fii noonu la boo joxee numéro bi rek appel léegi mi ngi noonu mais bul wuyoogu mbaal bañ émission ba pare Euh, jou as bëgg nañu la donc rendez-vous lundi incha allah ñu yeggale safar gi abrahama Serigne Saliou ni ko Papa Ndiaye waxee moom kenn la ci ñun ñu ngi lay ñaanal jàmm ñoo fa woon lool waaw yéen kenn mënu ko dindi muy moom muy njaaya suma jigéen yàlla dafa leen jàmm bu ngeen jógee fii tamit ñaanal leen yoonu jàmm yéen ñu di mbuur ah aco ñu bàyyi la nga ko ay coko leen ko amara waay sama waa ji eh. xale ba tey dafa yaru dafa mës a yaru Amara Amara nag Amara yow. ayca Pape retour bi war nga ma koo jox nag. taalibe Serigne Saliou. rëccu ma lu ma Serigne Saliou war a jox. so yumma mo ji baba mo ji ɓinguel bonata papa ndiaye dana deskuy toñe doom day dara jëy bàyyi foog nga dugg si mbuur nag dimanche kala yar saa ko déggalee naari yi takk nañ leen ah ku man waral ko teeña war waral waraloo wal way am na tey bu décarnassé tey bu mel birante bi maata gaay ah maam yaay faal seeri baay bay yoonu baay faal yoonu yàlla la yaay faal seeri baay bay gari yoonu baay faal yoonu yàlla la soo si nekkee nekk ci lu jub su la ko fu la ko jaarale faalu su la ko fu la ko jaarale su la ko ca kaw la ilaha illallah Fallou xamala laa bëgg a woyal xamala laa laa bëgg woyal Papa woyal ko waa 7TV télé bu mag bi ci émission bii ñuy wax les ambianceurs xamala laa bëgg nga woyal ma jaay bari jaay lu wax day mari ñee la neena neena yiwaale dina ngoon aha fariyaa fayadaa ateen amooyaa fariyadaa neena jagit jagit waaye papa njaay papa jibi ba neena papa jibi ba lu affaire bi ñàkk di waareem loo yor ñoomee li toppatoo ñooy sa ndëgën laay kon ku war naa li leen biyee estar mer loo woon yëpp tey laa koy dindi tey gari du monte patira patira suba li ma demee ñu may ma visa ni fama dem liggéeyi ngir teral samay waajur su ma ñëwee tàggu loo ambiance bi may indi ci dëkk bi yéen di ngeen ko gisee gaay na neex waaw neex neex rek da dëkk da yow suuru wuru mbax ay suuru wuru mbax ay ja yàlla ko jago sa loxo loxo jago dey a wàcc leen king bi ñëw na gaani da dak dat war gi dara daatil yow daatil daatil mana mana mi ci réew mi ku ne naan maana yow ku daan yawa bir mi di bir pisa ko tayu ey li may def sama deret la dama ko tayu billaay billaay billaay billaay billaay billaay Pogola Pogola ah Samba dafa génn fecc mu bees ku doon liggéeyi jërëjëf wàcc borom sol bi ñëw na kik baa ngi nii kik baa ngi nii kik baa ngi nii tax bu ma ba teel ma sëkk saa yu ko dama ma tax saa yu ko dama ah! ko kanamala lambar ciningi bat komarto woy bin falwaya repace kanama bace barapace abo Serigne Ablaye Fall faal mu yàlla faale tey ma di la joome borom joni joni yaa ngi ni Ablaye Fall oh, su ma fi ñëwee woy ma la xaw ma fu ma jëm xam am du ñoo bokk ndey ak baay ngay jaar lu neex bilaay kenn du ko ma jeex loo song mu daa di neex waay ay yow fëggal fëggal Papa Njaay